Saint-Louis département Gandon Mbour ville et département Kédougou commune Pikine ville Sandiara Sabodala Xosanto def naa lañu la ñu recensé gum su ñu nee Matam nag ñu xam ni commune yu bëri la du benn commune département bi yëpp la daanaka kon loolu lu coalition Yewwi Askan mënul nangu la parce que élection yi dafa am enjeu yu bëri nit ñi dañ naan élection locale rek mais weesu na élection locale parce que keroog le 23 janvier 2023 22 suñu si yàlla yóbboo si jàmm incha allah bu ñu toogee ba guddi du ñu lim rek ville yi nga xam ne moom la nit ñi gën a séenu kan moo ko gañe du duñu lim rek kenn ku nekk ñaata commune nga gagné waaye dañuy boole lim ne kenn ku ne ban pourcentage nga am ci vote bi ku ne woon amoon naa cinquante pour cent ndax da ngaa des 58 pour cent wala wàcc nga cinquante wala yaa ngi quarante kon commune bu ne rek commune bu am importance la ci nit ñi amul commune bu ñu xeeb boo gañewul it la fay fortaatu ci ay voix day ñëw ci cagnotte nationale bi bu ñu waree def le décompte moo tax Yewwi Askan Wi góorgóorlu ba investir fépp xam ngeen investir fépp yombut coalition yi ko mën bëriwul de liggéey bu rëy rëy la ci ay fani fan wala ay weeri weer ay guddi yoo xam ne nelawuñu loolu di liggéey bu ndaw parce que dañu xamoon lan mooy enge bi ne waruñoo xeeb benn voix te lii ñuy doxal nii commune boo newul rek zéro voix nga fa am kon fu toll ni mbuur nga xam ne ci électorat yu gën a mag la fii ci Sénégal ñu ne la Mbour googu zéro voix nañ la fa bëgg a defal loolu Yewwi Askan Wi mënu koo nangu xalaatuñu ko nangu kon lii ñu ñu bëgg a teg duñ ko nangu liggéey boobu nga xam ne liggéey nañ ko ci ay weer laa wax liggéey ko ay at lu ne ñu jàpp daj ko ba egsi fii du ñu nangu ñëw ba tey benn préfet wala benn sous-préfet toog fële ne moom ci loo xam ne teguwul ci fenn mooy xëy rek far loolu est-ce que sous-préfet yi xam nañu. le travail bi nit ñi di abattre ba war a mën a andi dossier teg ko seen table est-ce que ñoom xam nañ ko est-ce que sous-préfet yi xam nga moi j'ai été fonctionnaire je connais la fonction publique mais bokk na ci li ñu war a xoolaat ci formation fonctionnaire bi mooy ñu génne ko ci cadre bureau bi muy tëju mu xam li mu war a gérer li mu war a régir environnement socio-culturel bi ne ci autour yépp parce que préfet wala sous bu toog bureau xamoo fu nit ñi jaar ba egsi xamoo lu ñu daj nga ñëw ñu jox la ay ndigal ngeen jéggal ma mais ñu mel ni ay dëmm yu jëfuur di toog rek di di di góolu liste yeewi askan wi di xool lan moo ci manqué ban signature moo ci manqué ban xam nga suñu bëggoon rafetal mbir mi sax dañu ne am na ñaari liste wala ñetti liste benn bokk yaakaar ñu rejeté benn sous-préfet mënu ma ne sur l'étendue du territoire list benn bokk yaakaar yëpp matoon nañu bi ñuy ñëw sànq wax naa ko sous-préfet Guédiawaye nee naa ko on va te poursuivre personnellement parce que amul droit rejeté te jaarul sax ci commission te lim bañal list Yewwi Askan Wi mu ngi koy nangul yeneen liste yi parce que liste yëpp ñëwoon ak dossier yu manqué as tuut mu nangu leen ñoom ñëpp ñu andi seen liste daal di bloqué bi Yewwi Askan Wi te ñu ngi ci délai yi loolu forfaiture la moo tax ñoom dañ leen ñu poursuivre pénalement et à titre Sénégal nag li fi nar a andi fitna mi ngi jóge ci ñaar ba ñetti catégorie chaque jour ma wax ko administration territoriale néew ñu ñëpp de suba nga gis leen ñu génn waaw song na administration waaye préfet sous préfet nga xam ne c'est des ñu ci bëri c'est des démembrements de l'APR su élection jote ñoom bokk nañ ci liy taal réew mi te catégorie bu nekk nag nañu xam ni réew mi bu tàkkee ñoom duñ ci mucc organiser élection jafewul nañu impartial tolloo leen ñëpp élection yi jaar yoon mais gérer vos petites carrières personnelles nomination pour quelque milliers de francs de plus promotion boo gis quelques milliers de francs de plus la nga war a sànq réew mi ngir loolu loolu dafa war a jeex Sénégal duñ ko nangu ñaareel catégorie bi mooy les forces de défense et de sécurité wala ñi leen di commandé bokk nañ ci ñi a yàq réew mi te ñoom ñoo waroon a garantir sécurité ak stabilité réew mi gis ngeen li xew barki démb Ziguinchor ba ñu njëkkee attaqué bougé wuñu parce que dañ ñoo bett deuxième round bi mu amee ñu duma leen ba ñoom ñëpp a ngi hôpital waxuma la police waxuma la gendarmerie waaye armée la ñu andi armée yéen ñëpp gis ngeen vidéo benn homme politique di jox ordre les force de défense et de sécurité loolu gàcce la ci force de défense sécurité yi ils sont des complices wala ñi leen di commandé ci liy xew parce que lu am yéeg nañ ko xam nañ ko suñu yaakaaree nag ni waa Benno Bokk Yaakaar dinañ jël le dessus ci l'opposition du ñu bouger fa toog la ñuy toog joxe ay ordre ne gars yi bu leen bouger waaye bu dëma bi ci beneen côté bi rek nga gis léegi armée sax la génne armée nationale pour protéger waa Benno Bokk Yaakaar loolu du yoon na jeex ci réew mi kenn ëppalul kenn fii ci réew mi Macky Sall lan la as nit dong la mandat lañ ko jox mandat bi jeexee mu dem li mu bëggoon nag créer une terreur généralisée ba kenn du ñeme loolu ko ci moom ba tey c'est lui kii l'a terrorisé ndax yow soo demee ba sa titre foncier yaa ko woowee noonu yaakaaroo lu dul ci ay jënd ay nit pour saboter ay liste parce que bëggoo compétition am fa kooku il est terrorisé looloo fi am ñetteel catégorie bi moo waxaat ko mooy la justice sénégalaise nañu delloo seen xel dafa am yoo xam ne rafetul des recours vont être faits man de am naa ci partiellement yaakaar waaye yàgg naa wax ni justice bii dès qu'un dossier a une coloration politique à 99 pour cent bu ci yaakaar dañ leen di jox ordre ñu def la justice sénégalaise ma leen di wax nag cette justice là Barthélémy Diaz sera le candidat de Yewwi Askan Wi bu soobee yàlla kenn mënu koo tere nekk candidat et nous dakaar Dakar incha kenn mënu koo tere gannaaw yàlla lii ñuy def nii dafa ñaaw ci Sénégal dix ans nga yor dossier di lambar lambari dix ans dix ans nga yor ko dossier di lambar lambari ba nit la le lendemain nga naan da koy convoqué moi si j'étais Barthélemy du yàgg naa leen ko wax nee naa leen man nee nañ am nañ dossier bind naa def naa lu ne nommé leen un euh, euh, euh, un juge defuñu ko. bu ma demee ba déppo sama candidature suñ ma wooyee du ma wuyu ji demuma respect des institutions day fekk institutions yi respectable mais ay justice boo xam ne amuñu benn personnalité topp Macky Sall mii rek fu mu leen joxoon ñu dem loolu dafa war a jeex réew mi te kenn du ko nangu lu mu leen jaral nañu ko jaral je le répète ku mu neex nag nga toog fa leen ne Sonko nitu fitna la j'assume waaye man duma koo xam ne dañ may ñëw noggatu toog duma ma dóor ma tëj ma manaan naan incha allah macha allah defuma ko soo ma ëppee doole rey ma soo ma ëppee doole rey ma waaye je defendre te loolu rek moo fi des ak Macky Sall bu dee nag Barthélemy day wuy ji maa ngi wax toute la jeunesse sénégalaise lundi à la première heure ñëpp dañu daje gunge ko ba tribunal bu fa kenn xaj.